aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi la di Daaru Moxti ci pencum Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Moxti tey ji yamook àllarba fukki fan ak benn ci weeru uut ni ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadou leen Mountakha joxe ndigal ci mboolem fu am murid nekk mboolem fu ab jullit nekk ñu maase ci jàng xasaay di Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ci di ko durus ak di ko yëkkati noonu la ko Serigne bi joxe ndigal penc Serigne Touba yëpp. ñu di ko def gis ngeen daarul moxti wàccaay wu am solo ba la ko tàmbalee ci appel ba euh, préparation bi waaye li ci gën a yéeme di ak jagle mooy ñëpp dañu koy màggal ci bis waaye daaru moxti moom dañoo gàttandu bis bi bii mën na ma wax ne dañ koo fanaanee màggal fanaan koo dundal fii ci penc mi moo tax ñu ngi taxaw ak Serigne Abdou Khoudous Dieng di jëwriñ ci fédération Islaahu Daarayni moom itam mbokk ci ñi taxaw ba sëriñ bi ni mu bëggee woon lii mu amee ko noonu moo tax ñu fas yéene seq ak moom waxtaan incha allahu rabbi ginnaaw ba ñu xëyee nemmi ko mbooloo mi ñëpp maase nañu jëfe ndigalu sëriñ bi mooy wuy mel na ni euh, barab yi nu woon ngir nit ñi toog ci ba nu jàppoon ni du fees dafa fees ba des kon nit ñi wuy si nañ waaye bëggoon nañoo laaj mm, taxawaay bi ak ndigal li bi ngeen ko songee naka ngeen def ba man ci ak si fii sëñ Abdou waaw waaw sëñ Moussa ñi ngi ñi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin santaat yàlla bu baax a baax a baax mi nu taw féexe la bis bi ñu fekke ko te jëf ci te def ci sunu ñaq ànd koog taalibe yi ànd koog sëriñ bi ànd koog murid yëpp euh, bis bi nag euh, dun def lu dul santaat yàlla rek te rafet ci njort am ci yàqin ne sëriñ Muntaxa yàlla dana ko rus ci lim yëg ak lim gis ak lam lam lam lam lam wax ak sëñ Tuba bam woote bis bi nga xam ne kenn musu koo woote muy bisu xasida bi murid yëpp ñëw nan mm-hmm. taalibe yëpp ñëw nan ñëw nan indi seen alal indi seen jëf indi seen indi indi indi seen yéene ñëpp a ngi jublu penk penku tàllal seen i loxo di ñaan di jàng xasida di ko durus ñii ko yëkkati ñëpp a ngi fi waaw jotaay bi ñëpp a ngi fi kilifa yëpp a ngi fi Serigne Abdourahmane ñëw na Serigne Abdou Samad ñëw na kilifa yëpp ñëw na bu tuddee ñooñu rek tudd nañ ñëpp ndax euh, barab bu nekk it nag am na ñoo xamante ne si la fay diine xëy na ñoom ñoo yore wàll woowu waaw kon nag duñ def lu dut euh, santaat yàlla bu baax sant sëñ taxaam mi nga xam ne moo jox ndigal li sëriñ Basiru Anta Ñang mu jox ñu mu jox ñu ndigal li kon nag ñun tawféex gi nu ci yàlla defal mooy euh, liggéey bi ñu taxaw ko mm-hmm. taxaw gi nag lu yomb la da nga cay nekk rek sëriñ moo lay dimbali bi nu sëriñ bi joxee ndigal ñun liñ def mooy ak sunu yéene ak sunu paspas ak sunu taalibe ak sunu yéene rek lan jiital waaye murid yi moom li may faral di wax rek kenn mënu leen a nax taalibe yi kenn mënu leen a nax ku leen woo ci sëriñ bi mm. tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi fëggoo sa dënn yëgoo sa bopp ci mbir mi mm. li nga bëgg danañ la ko defal nit ñi ñëw nañ indi seen seenu ñaq indi seen i xéewal xoola xéewal yi ni mu toll teraanga yi li fi nekk ci ndox mënuñu koo naan mm-hmm. li fi nekk ci mbiskit li fi nekk ci ay xéewal waañ yi ku ne taal nga ñun taal nan ay mbana ba jàpp ne ñeenti waañ samp nan ko ba jàpp na doy na ñu ne nan dolliwaat sëriñ Bass Anta Dieng yónneewaat fi ay xéewal yónnee fi nag ñu taalaat weneen waaj fi may wax ak yow taalibe yi nga xam ne woo nan ma ne ma ñi ngi togg di waaj di indi kenn xamul nu mu toll ñi njar nan indi ñii suukar nan ñii moom daal lu ne indi nan ko ci penc lépp lu waay jàpp ne boo ko defee da nga taw tawféexu sëñ bi def nga ko waaye ñi ngi teew ak sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Abbas euh, di koo xam ni bu ñu tuddee xaside yi taxawaayam ak pësteefam ak pas-pasam ci xaside yi ñëpp maase nañu ko xam ci biir réew mi ak bitim réew sëriñ bi ginaaw ba la nuyoo ziar la fekk nañu la yaa ak njabootu borom daaru Muxti gépp ngeen toog di dundal bis bi ni ko Cheikh Mamadou Mountakha digle ak ni ko sëriñ Bassirou Anta Niang joxe ndigal njaboot gi ñu defe ko fii ci pénc mi loo ñu mën a baaxee tey ci eh, lii nga xam ne tey ba yoon wi sosoog léegi ñoo ngi doo ko gis ku fi nekkal sëriñ Tuubaa woote bisub xasaayit te Cheikh Mamadou Mountakha def ko yàlla na yàgg te wér lan nga ñu ci mën a indil ci ab soññee eh, jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi siyaar bu baax a baax tey am mbégte mu kawe fi nga daaneele rek mu mel ne fi neen yëkkatee ci sant yàlla bu baax a baax ndax ñu woon ci jataayu Nuuru Daarayni yem ci wasrif bi jaahil muntaxaalil umma i xaasatan takfi asaawal xumma loolu nag borom xam-xam yi dañ ci defu gëstu ndax sëriñ bi muntaxaa la wax kon man muntaxaa la mu mel nekk ne ni nga ko waxee bisum ndigal la ndigal nag ci la ñuy jariñoo ndax lu xat-xat yi bari bari lu jafe-jafe ji bari bari xam nañ ne gënoon naa metti ndax euh, kii ñu toog ci ab jëtëm ab ëtëm di borom daal muuti daj na lu ne ngir sëñ Touba daj na lu ne ngir sëñ Touba lii nga xam ne moo fi nekkit te saa indi ko fi muy feebar euh, di corona yàlla moom day daa nekkut ku kenn yilif waaye li nu xam te ko mooy mayi sëñ Tuubaa rek moo bari ci la bokk feebar bi ci mayi sëñ Tuubaa yi la bokk ndax ku ne xam na ne ñun uhuh. gën na noo jege yàlla uhuh. gën na noo tax a góorgóorlu ci ci ci ci ci liggéey bi uhuh. euh, kon mu mel ne euh, tawfeex daal lanu ci amee bu baax a baax ba nu yàlla mayee ndimbalul euh, bis bi sëñ bi woote ñu mën a am wér gun ci mën a teewe ba jëfe ko ni mu ko xam naa ñu ngi guddal waaye nanu xam ne daal yàlla moom mm-hmm. beral na sëñ Tuubaa loxo tamay na ko ndax bis bu ne woote nan ko fi mm-hmm. daje nan fi mm-hmm. maa ngi koy wax sëñ maam Thierno mi ma déggeen léegi ne ko sëñ Tuubaa li tax mu yéeme mooy booy bi ñu jàng alxuraan ci foo daj yàlla yàlla moom wàcc rek lay wax inaa ansalnaahu ngay dégg rek mm-hmm. nangam waaye Sëñ Tuubaa na ngi rafax naa ilal maahi <laughs> waaw ay bagage moom di yëkkati ku jëm kaw waaw leneen lu dul loolu nag loolu li ma bëgg a wax rek mm-hmm. mooy lu lenn lu dul Sëñ Tuubaa la yàlla ber ci lépp mm-hmm. tollu réew mi fi mu toll ci jafe-jafe wala ci lu koy nuru lépp lu ko indi mooy ñàkk ber gi Sëñ Tuubaa waaye lii ko yàlla defal buñ ko nangu woon te daw jëm ci danañ xam ne ndimbalul kese la ndax andul ak kon daal ñi ngi guddal sax kàddu yi ñi ngi sant bu baax a baax mm-hmm. tey jéggulu it si mm-hmm. kaddu yi dëng yi jërëjëf jërëjëf ñi ngeeg ñoo xam ni boo tuddee xasaayit ci Daaru Moxti ca jamono ya Cheikh Ibrahima Faty ba léegi da nga leen tudd waaye fi nga xam ne fi la ñuy jëlee kàddu yi mooy mawlidu nabi nga xam ni dimanche ju ne ñu fi fanaanee dundal feeñu jamono yorente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi itam la sëriñ bi jox ndigalul journée bi ñu ubbi ko ñu tëj ko itam ñi ngi teew ak euh, way jur Serigne mbay Lo nga xam ni moo jiite mag yi bayti yi mu fas yéene ñëw ak ñun ci ay kàddu euh, Baye mbay yan kàddu nga nuy indil ci kàddu yi soññee ci xasaayit waaye kàddu yi soññee yoo xam ni mun Mamadou Mountakha woo nanu ci ngir gën a xiital mbokk taalibe yi ci xasaayit te fekkoon na leen ci yéen ñu ngi ñaan sunu borom mu yàgg lool yan kàddu nga nuy indil. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen balu ak baal nañu ak ñëpp noo ngi ñaan sunu borom ndigal li sëriñ bi yëkkati jox nu ko mu def ko nu def ko ni mu ko bëggee bu amee li mu bëgg mu bëgg rek nu am li nu bëgg noo ngi ñaan yàlla ak yonante sëriñ Touba ak borom daarul muuti sëriñ Muntaxa mi yàggal ko fi sunu kanam ak sëriñ Bassirou Anta Niang ak njabootuk sëriñ Touba gépp ak njabootuk borom daaru gépp waaye danoo am loo xam jafele ndax yoonu murit loo fi gis mu yëkkatiku bàyyi ko ci sëriñ bi ku ko xam ak ku ko xamula ci yam waaye waaye maam Thierno mooy bunt bi ba mu ànd ak Serigne booba aw yoon amagut ab liggéey amagut sëriñ bi liggéeyeegul diggeegul ak sunu boroom ci lu nu xam nun bi mu demee ba diggee boroomam bay liggéey it daa fop njabootu boppam gi ak taalibe lépp teg ko ci loxoom ba liggéey ba dellusi bi mu dellusee dafa dem ba yàgg mu woo sëriñ bi njaareem ni ko dafa am gàmmo gii nu jëm dafa am gan gumay may gane si te ma fonk ko lool ma bëgg ngeen ñëw ganaleel ma ko bu gan gi ñëw ngeen gàttanu ko bu ñëwee ngeen teral ko buy dem ngeen gungeel ma ko mu cosaanul mawlid bii nu toog ah la mu cosaanoo woon rek nu bañ koo nu bañcaa caa dellu ginnaaw. bis bu ne luñ ci man ci yokk ko ah ci sunu kattan ak sunu xol ak sunu yéene ak sunu jëf nu di ko def nu def ko ndax lii moom luñ ci def rek doyut ndigalal sëñ ji luñ ci def lu rëy rëy rëy rëy ndax la lanu sëñ bi fayee mënuñu ko sunuy wajuru mënaluñu sëñ bi rek kanu ko mënal. dëgg la waaw ma bëgg nag nu am ci pëstéef bu baax a baax a baax. def ko nii ko sëñ bi santaane. Mhm. te bu nu ko defee li ma leer mën na maa waat ci sëñ mu daaw balla ni bu nu ko defee ni nu ko bëggee sëriñ bi dana nu defal li nu bëgg bu ñu amee li ñu bëgg rek nu am li nu bëgg. waaw waaw jërëjëf